nee di leen jot li kàddu yu bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadul Mountakha tey ñaan mu yàgg fi lool te ànd ci jataay bii nga xam ne ci ndigalam lañ ko defee ndax liggéey bi moom mooy borom liggéey bi moo fi nekkal ci sëñ kon li nu war rek mooy déglu ko bañ koo jiitu ba mu joxe ndigal xam ngeen ne nag fi àdduna si toll ñépp xam nañ ko ndax li ci suñu borom wàccee ci àdduna sépp la kon ab nattu la boo xam ne moo ko fi wàcce moom suñu borom moo waral itam daje bi yeex ndax mënaguñ ko woon a def te jotuñu ci ndigalul sëriñ bi waaye nag gannaaw yàlla def na tawféex sëriñ bi joxe ndigal ngeen xam ne bis bi sëriñ Touba moo ko santaane woon dële yi itam dële ji lam ci dële woon kon mooy sunu lépp fii jamono toll nag ñu sóoraale ko waaye xam ne suñ borom mooy musle te lu dal nit itam moo ko ko teg kon lay jiitu rek ci li war a def mooy dellu ci moom suñ borom ak di ko ñaan mu musal nu ci waaye ànd ceeg nag dalu dalum xel bu baax a baax ci gëm ne yàlla dana ko woyefal ndax ndax dëkk bii di Touba léeg-léeg nga dégg ku ne amu fi waaye lépp solo ci li war a wax moo di boo xamee dëkk bi ni mu toll ak jàngoro ji ni mu fi néewe doole loolu xarbaax féetewu ko kaw kon loolu dañuy am yàqin ci ne baat bu teefu Serigne Touba lu bu mu ñaan ci dëkk bi te suñu borom may na may ko ko moonu ci musal kon yàlla na nu ci gën a musal ndax sëriñ bi moom juboo na ak sunu borom ci lépp kon nu mu ko bëggee rek noonu rek lay deme waaye nag di fàttali ne ba peste bi xewee ca njaareem sëriñ bi dafa waxoon ne bañ koy wax ne ko na ci ñaan sëriñ bi dafa waxoon ne mbindeef mu yàlla sàkk la waxtu bu ko jeexale rek mu jeex ba bis mu xëy nag dajale taalibe yépp ak njaboot yépp xamal leen ne suñ boroom xamal na ma ne jàngoro ji mu fi wàcce woon bis ni ki tey jeexal na ko mu daal di jeex ko saasi ba mu amee ay fan mu dajale ñëpp wax leen wax ju tawxiide ndax sëriñ bi waxam jëpp li muy bëgg bëgg yonente bi sallallahu alayhi ak li mu koy topp topp léppam tawxiid la lépp da koy dalal ci suñu borom boo dee jàng xasiida yi li muy yaatu yaatu fu mu ko fu mu ci tuddee may gu ko suñ borom may lépp da koy delluwaat ci moom mu wax leen ne leen ndax da ngeen a yaakaar ne lu ma soob rek soob na yàlla ñu ne ko waaw Mbàkke mu ne lu soob yàlla soob soob yàlla rek soob na ma daal ne ab jaam balaa suñ borom a nangu ak njaamam mooy lu yàlla dogal ci moom da koy neex kon foofa rek lu sëriñ bi nekkoon moo tax natt bu masaan bi jëm si ci xeet yi mu yanul leen ko mas naa dégg ci sëriñ Saliou Mbàkke muy nettali bi sëriñ bi nekkee gànnaar bis natt yooyu ko daan dal nga xam ne day metti ba fi du mën a jóg fi mu toog lu dul waxtu julli bis nag mu dal ko ci gànnaar am kenn ci bokki taalibe yi am ci sëñ bi yërmande lool daal ne lii dal sëriñ bi day na ko suñ borom teggi te teg ma ko fa saasa rek mu daal di faatu bañ ko yëgalee sëriñ bi sëriñ bi daal di laaj lu tax. ñu nettali ko. mu ne moom de dafa bari solo. mu ne moom de dafa bari solo. waaye waaye lii ma dal waaye lii ma dal de. lu toll ne misqaala daratin. doomu aadama attunu ko ci. ndax balaa la bu suñu borom doon wàcce ci mbindeef yi ma yar mu yanul leen ko moom sëriñ bi loolu kenn attunu ci dara kon sëriñ bi ku ko doyloo te muy dëgg ci yow da ngay am yaqin ci ne. da ngay am yaqin ci ne. yàlla dana la ci musal. bu la ci musalul nag. tey bu la bu la ci musalul nag. xamal ne daa gën ci yow. ndax ab jaam. bu ñaanee suñu borom. faaw mu nangu ko. faaw mu nangu ko. waaye mën na ko fegale leneen. wala mu wattee ko leneen. wala mu wattee ko leneen. wala mu dencal ko ba ëllëg. kon. liggéey sëriñ tubaab liggéeyub sëriñ tubaab bi. ni ko sëriñ bi santaane. ko sëriñ bi santaane. ndax sëriñ moom du juyoo ak sariya. kon fàggu teef mënta ñàkk. waaye dañoo war a am yàqin ne. ak pësteef ak dogu. ci xam ne. liggéeyub sëriñ tubaab bi. ni mu ko bëggee rek. dara du mu ci gàllankoor. kon ñu gën a yokk suñu pësteef. laxasaayu. gën cee am pas-pas bu dëgg suñu digg ak sëriñ Tuubaa ci liggéey bii ñu bëgg a tàmbali te xam ne lépp lu mu ko yan àttan na ko loolu bu mu ci doxee itam danañ ko gis te danañ ko yëg kon sëriñ bi nee na ngi sant ñëpp tey rafet njort nag féeg màggal gi yàlla mën na cee dafa woyofal wala mu jeex sax loolu nag coobale suñu boroom la ndax mooy xam kañ la koy jeexal waaye nag li ndegam lislaam dafa santaane nit bu jàngoro nekkee ci moom mu fexe ba bañ ko wàll kenn ndax loolu loolu bokk na ci liy tax ak njulitam mag kon nag luñ ci mën a sàmmoonte nañ ko def te yaakaar naa du yàq dara bu boobaa ndax li ciy firnde. bi nga xamee ne wéradi gi tàbbi ci réew mi. bi nga xamee ne wéradi gi tàbbi na ci réew mi. adduna sëpp jaaxle. adduna sëpp jaaxle. kenn xamut. jàngoro ji ñu bindoo. jàngoro ji ay ak yan jeexit lay am. waaye da ngay yéemu ci sunu borom. yéemaat yéemaat ci Sëriñ Tuubaa ci lu ko sunu borom defal. ndax bu ngeen xoolee jumaa yi ak jàkka yi. biñ ko ubbee ñëpp a tiitoon ndax yàlla moom coobareem rek lay jëfe te dafa maandu te moo xam ne muy jëflante ak jaam waaye nag sëriñ moom war na ci xar baax ndax biñ ko ubbee ñëpp a war a tiit waaye yëf yi dafa wàññeeku di gën a wàcc kon loolu itam day gën a dolli suñu yàqiin suñ digg ak sëriñ Touba ndax Cheikh Mouhamadul takka dafa waxoon ne jàkk yi jàkk yi ay jullit lañ bu ñu jaaxlee suñu borom la ñuy ñaan kon fu ñuy wéetale yàlla di ko fa ñaane buñ ko tëjee ba noppi di yaakaar yërmande yàlla loolu xel mënu ko nangu sëriñ bi foofu la ci nekkoon moom mi dégg na ko ci moom ñu bari dégg nañ ko ci moom loolu lépp itam liñ gis mu defoon ko ci it ci nangu li nga xam ne waa adduna tëral nañ ko mooy sàmmoonteeg lis lislaam santaane ci nim ci nim dénk mbir mbiri adduna bi noonu rek la demee waaye yitteem ak pastéefam ak fonk lislaamam ak bëgg ñëpp fonk lislaam loolu moom ñëpp xam nañ ko ci moom kon nag sëñ bi nee na mi ngi sant ñëpp di gërëm waa comité bi yëpp ci seen pasteef ak seen yitte ak seen taxawaay bu rafet ci liggéey bi li weesu lépp ci niñ ko sellale ak ni nga xam ne ku na la ngay jëf sëriñ Touba rek nga ko sereel ngir xam ne moom nga koy jëfal te pay ga yi itam nekkul ci kenn loxol kenn ku dul moom sëñ Touba kon nag loolu yàqin jiñ ci am moo tax ngërëm sax doxut seen suñ digg ak ñoom ndax kenn ku ne xam ne sa bopp sa bopp ngay defal waaye kon ñu gën a góorgóorluwaat fexe ba liggéey bi gën a baax gën a nosu gën a tegu ci yoon te xam ne liggéey bi yaatoo nii faaw ay rëq-rëq di ci am waaye li war a doon suñu yitte waaye mooy ñu ci gis muy gàllankoor ñu fexe ba jéem a saafara loola ba bu bu ëllëgee loolu du amaat luñ ci gis xam ne manqué na it ñu fexe ba loola mu mat ngir bu ëllëgee mooy tax liggéey bi di avancé waaye sëñ bi nee na ñëpp xam na ci seen yitte ak seen pasteef sëñ bi nee na li ci des mooy doon ubbi jataay bi rek ngir fas yéene commission yëpp kenn ku kenn ku ci nekk liggéey ki ku ci ne fi yëf yi toll ak liggéey bi xalaat boo ci am rek nga wax ko ndax lii tam loolu rek lay jëriñ comité bi ndigalul sëriñ bi la waaye sëriñ bi bu ko taxawalee def ko mbooloo mooy daa bëgg ñu sottante ay xalaat ku ci ne la nga jàpp ne moo koy baaxal nga wax ko ngir mu mën a doon loo xam ne liggéey bi day gën a tegu ci yoon ndax dañ cee wutu ñëpp di leen ko defal kon ku ci am xalaat rek boo xam ne jàpp nga ne mooy tax mu gën a baax dangay ngay fexe ba di ko jottali ñu di ko dégg di ko saytu xool bu dee lu war a am rek ñu def ko ndax wa shaawirhum fil amri alquran moo ko santaane yonte bi salaa sallam indiwaat ko kon jataayu diisoo la ak weccoo xalaat kon nag sëriñ Ousmane nee na mi ngi lay santaat bu baax itam ak mboolem ñi nga àndal ñëpp yilif leen bu ñu la tuddee rek tudd nañ ñëpp ndax moom sëñ bi nee moom itam taxawaayam ak yitteem ak pasteefam ak dogoom ci liggéey bi sëriñ bi sax xamal na ko boppam ñëpp it xam nañ ko. nee na yéen ñi mu ko àndal itam ñépp ko ko seereel fu mu nekk ak fu mu nekkul kon liggéey bi bu mënee dox nii nee na sëriñ bi nee na da koo ànd ak nun waaye bu mënee dox nii taxawaay bu sëñ Ousmane moo tax kon nag nee na ñu ngi koy ñaanal bu baax ci pëstéef boobu moo am ci sëriñ bi di ko def ngir jëmmi sëriñ Touba di ko defee pëstéef ak ko sellal yàlla na ko sëñ Tuubaa defal nee na ñu topp ci gannaawam yépp it ñu jiite ay commission ak ñenn ci biir di doxal liggéey bi ndax ku jiite commission it ña topp ci sa gannaaw mooy tax liggéey bee dox day mel ne moom mii rek nee na bu ko sëñ bi dénkee it seen liggéey bu doxutoon commission bi du taxaw comité bi du taxaw kon nag lépp bu baaxee rek mooy àndandoo gi boole yéene yi bokk boole pexe yi jëm fenn rek ne sëñ bi nee na mi ngi sant ñëpp tey rafet jot bu baax ci xam ne lu waxtu wi xat-xat ak lu xel yi nëx-nëx suñu tegee suñu borom ci suñu kanam teg sëriñ Tuubaa ci suñu kanam duñ jàq duñ jaaxle duñ tiit dañoo war a am dogu rek xam ne li wolof di wax naan xandeer bu demee ci waar wàcc na kon nag liggéeyal sëriñ Tuubaa rek kanu war kon nag kuy liggéeyal sëriñ bi ba agsi ci loo xam ne wóor ma la ne ndigalam lu mu fonkoon kon da nga cee def sa jom def ci sa yitte jàppe ko ne rek te sëñ bi nag woyofal nañu ko ba lépp na gën maamam baayam te yaa ko waral yaa kem yaa gën ña jot daya ba yàllaa ngi lay gërëm yonen ba ngir li nga def ci yàlla yi ak fekk gi nga fekk musiba